cinq mbir laa laaj soxna aada bi ci njëkk waa kër Ousmane Sonko yi ak waa kër Khalifa Sall yi daje nañu sànq xeex xeex bu metti sëñ buur mhm. coow li ma gis seen diggante ñoom bu ñu deltuwul ginnaaw deret ju bari dina ci tuuru nga xeex bi ma gis seen diggante mhm. muy ñaari parti yi mhm. suñu deltuwul ginnaaw deret ju bari dina ci tuuru deret ju bari dina ci tuuru tey naa leen juróomi mi révélation laay indi soxna aada mbiru may mën a ndóoru fay Soxna bi nga ko déggee am nga loolu naqari sëñ buur bi ma ko déggee am naa mbetteel am la ma naqari mm-hmm. mais boo seetee suñu émission démb mm-hmm. xaw ma bërki démb mm-hmm. wax naa la ci dëgg la dama ne la élection yi ñuy puus ak a puusaat soo maytuwul dinañ dam ba dootuñu tal waxu élection yi xaj na nag danga ma dul dégg léeg-léeg su may wax ak yow dëgg la kii di may mun Maymouna Ndour xam nga li ma koy digal sañ buur ay mbokkam nañ ko jëlaat. Mm. te moom mu dugg ci biir mbokkam ci séeréer si defar yaramam. loolu di ñaar ñetteel bi soxna aada ku ne xam na ni Sa Thiès ak Eumeu Sène suba lañu war a jàkkaarloo Eumeu Sène mi daan Balla Gaye de ñaari yoon war a dajeeg rakku rakku Balla Gaye guddi yi ñu toll su ma amee lu may wax dama naan Sa na maytu Eumeu Sène yaa ngi may dégg wala déggoo ma. <laughs> maa lay dégg bu baax a baax boo ne jàll ci leneen. nga ni su mënee moytu. Balla Gaye dama ni. kii di Eumeu seen mm. Sa Thiès su ko mënee maytu na ko maytu guddi yi ñu toll Balla Gaye di Tapha sëñ buur dama laa xamal ne la fi mu nekk nii kii di Balla Gaye daa taxaw mm. te daa pare ci lépp mm. su ma amee lu may wax Tapha Tine dama naan ko jugal nga waaj te defaru est-ce que yaa ngi may dégg bu baax ñu dem ci leneen ñu dem ci diggante Boy Niang 2 ak Reug Reug bi mujjee taxaw sëñ buur kii di booy Niang waxuma pour yàq waxuma pour dara li ma koy dollee mooy na defaru mm-hmm. fi mu yàqoo mm-hmm. xam nga fu mu yàqoo est-ce mm-hmm. fu mu yàqoo xamoo ko yow déedéet wax dëgg yàlla xaw ma ko kii di Modou Lo fa la yàqoo na jug defaru bu defaroo day am ndam mais bu defaruwul ndam du ko yomb bu defarawul ndam du ko yomb naa leen réew mi moo ci dàq seet yéen jot a jëflanteeg moom xam ngeen ko réew mi bokk na ci ñu ci dàq ñan yàlla naam li muy jigéen jàmbaar la garmi la bette bette la ñaankatu yàlla la Sonaada seet xëccoo ko ak kenn man bëggatuma sax wax ah, parce que ba ci man mi rek léegi damay am lu lu ma arrivé bërki démb sama yaram sutonte na ma toll sama kër ne la Sonaada man de jaaxle naa ndax sama yaram bi métti na diis trop trop nga seet ko ne ma lii la ak lii ñëwal sama kër ma ñëw sa kër li ma gën a jaaxal da ma jox cangat ñaari cangat benn bi nga ne ma liibaru suukar nga ciy def ak xorom ak lem nga sangoo ko. moo ci laaloon daqaar xam sëñ buur. li ma yor du ay caaxaan. beneen bi xasu xay la àndal Soxna ñaari cangal yooyu rek laa bëgg a waxtaanee. xam nga yow dama laa ñamal ca xasu xay. Mm-hmm. ak téeméeri kaani yu bokkul. Mm-hmm. ñi may ñamal ca xeeru latrig yu xonk yi ak sans pousse. Mm-hmm. sëñ buur. réew mi ku ma maaseel jamono bàyyee nga ma xel. càngat googu ci lu muy dox soxna ñaari càngat yi laa bëgg a décortiquer dama ko bëgg tas. xam nga kaani kenn yi mew ko ndax weex. Mm-hmm. léeg-léeg cat sonal la diisal sa yaram. Mm-hmm. léeg-léeg ñu defe ni cat la te cat yàq-yàq yi def def yee xeex yi mooy bëri ci yow. Mm-hmm. bu dee borom rawaan dëgg nga yaram wi day diis. da koy yëg waaye nit ki li mu bëgg ci yow du ko am. sëñ buur ànduma ku ñuy jekku déedéet. te ci sama biir nga bokk. waaw man de wax dëgg yàlla sant naa. fi waaw kon du kon boog du ma seetaan ban lay maasale. kon cangat googu ci yàqu-yàqu rek lay dox. képp ku la laal boo ko sangoo ni kaani di safe noonu lay nekkee ci fitna ak xat-xat. xam soxna li ma jaaxal <laughs> soxna bi laay doon nit nee nga ma kile ko def jigéen la ak genn góor gu njool ca kaw ne ma ku jigéen kii. ak ku góor ki di ko dégg tel di leen dégg téléphone waaye ku jigéen ki dina la sonal lool pour gis yow dafa am lu mu la bëgg a wax lu ma juróom benn fane ngi ku jigéen ki mu ngi may woo nangu ko jël ku góor ki moom wana ma di wax ay waxi ndax daxan nag rek ma xam ni kii <laughs> amul lu mu wax <laughs> sincèrement xam nga léeg-léeg danga naan soxna Ada samay rawaan daa ànd ak say rawaan mhm, waaw dëgg la say rawaan yow moo ànd ak samay rawaan mhm. heure bu ñu lay taqal yow. Mhm. li la war a lor day yegg si ba ci samay nopp. Mhm. bu boobaa seetaan waruma damay jug te damay dëggal sama bopp. Mhm. sëñ buur suñ naan soxna Adam mën na ñaan. ñi ko wër di souffrir. yanuwul maanaam jurul jariñ. dama laa xamal ni la. guddi gu jotee. samay niti bopp. dama leen di jàmbat di leen xool ci li ñuy ne. ak ci li ñuy dox. bu ñëpp nelaw. Mhm. sëñ buur dama laa giñal ci mbaaxu yàlla ne nit bu yàqulee mhm. ba sunguf si ma la jox démb mhm. ma jox ko ko mu ñaf ci liibaru suukar bu amee ndoxu géej baax na su amee xorom def ci bu amee lem def ci bu ci sottee daqaar lay gën a yéeme kan mooy xëy suba ba ngoon jot boo gisee Dakar doo tàqamtiku wala wala doo lekk xorom wala doo lekk suukar amul de kan mooy xëy suba ba ngoon jot doo lekk suukar doo lekk xorom gisuma ko ci buñ la tere rek beneen ba ca des di ko def mm-hmm. foo jaar saf nit ñi mm-hmm. loo yootu mu yomb la looy lijjanti mu sotti bu dee wàllum noot tam am na ci beneen secret bu ñuy pëtëxal ci biir ci ci même càngal googu sëñ buur nee leen ma jàq te bañ maa piis mm-hmm. nee woon naa la bu ñu demee ba ci kanam sëriñ dootu fi ñaan yàlla tama fi ci ci guddi yooyu laa toll def lu leer. déggoo ma de xam nga li waral lool li koy maye. Mhm. jub. Mhm. bañ a foqale bañ a tiit bañ a ŋàppaaral. Mhm. lu la nit jox nga liggéeyal ko lu la nit joxulit nga liggéeyal ko loo xamante ne sedd na xolam. sànq dafa am sama benn xaritu koo xamante ne nii ñàkk la. yónnee ma teraanga ju bari te yaakaar naa bee paase yónnee woon nañu teraanga ba nga ni yow da ngay man la néew doole yi la ma wax ngan ma néew doole laa lu ma la mën walaay ndeysaan te kooku da lay xool rek ne soxna aada maa ngi yónnee teraanga ji jëfal ma ko te ni ko bëggee waaye man boobu li ma jaaxal teraanga ji bu la neexoon lekk ko xalaatuma ko ci na sëñ buur ak ni xaalis neexee waaw li muy neex neex sëñ buur ngoro ko dàq am soxna aada da ngay dimbali jaamu yàlla yi lii kat som bi maa ko yëkkati jox la ko nga dimbalee ko jaamu yàlla yi waaw moom li ko war mu war ma war keneen ak keneen waaw ko lekk fii li fi néew doole gën a bari mhm. ñi ñu fi war a teral dimbal leen dañoo bari faqir yeeg masakin ñi ñu war a gunge gën a bëri mhm. sëñ buur yaakaar naa démb da ngay ñëw fekk benn xale ma koy suivre TikTok xale bu mhm. ma marqué ku ne daa bëgg a teral ndeyam dem na ba ci ni journaliste bu fekkee dag may nax teel ma koo wax sëñ buur dama bëgg ku fonk ndeyam xam nga nit ñi ci lu ñuy rawante ci waajur yi Sonatel dinaan ki ma gën a sawar a ñaanal mooy ki am. gërëmal waaju mm-hmm. kooku puus mu tàq laa ko tudde mm-hmm. boo ko ñaanalee balaa vingt quatre heures mu message ni la sama aajo faju na mm-hmm. sëñ buur ki ndeyam gërëm ki baayam ñaanal suul ker du ko teree feeñ dëgg la dëgg la sëñ buur kii maytu sobe fu mu toll loo ko ñaanal mu teg ci bëtam sëñ buur dama la giñal ci mbaaxug yàlla ñu baree ngi tooñ sëriñ si nag mm-hmm. ci soxna diw wala sëriñ diw bu ñu ma joxee nàngam ba léegi fi ma tolloon falaa toll mm-hmm. seetaatal sa bopp naam rawaan dina ko def mm-hmm. rawaan dina yàq dina yàqal wala liggéey bu bon nit ki di la ñaanal du mën a fexe ba nga stable ci sa vie wala cat waaye bu boobaa kalay ñaanal itam war naa xam ni kii rawaan na ko téye bëri na lu nit di ñaanal nit dem ba ci biir reculer ndax xam na ni bu continuer njabootam rawaanam yi ci kaw la ñuy këpp wala ci boppam mhm. bu boobaa sëriñ ba dootu ko ko jaral day mhm. reculer mhm. man soxna Ada heure bu ma duggee yow ci sangatu rab rek nga jox Soxna tey loolu laa bëgg ñu waxtaanee rab ci yan feeñu waay lay feeñoo nit ki ba mu xam ni que am na rab sëñ buur rab mën na laa jox sa kanamu waajur ngeen di sëy waaw sa raq sa mag loolu mooy ñi am coros rab wala falu rab. waaw bu lay feeñu ci jëmm. joo day dal góor day dal jigéen. Mm-hmm. dama laa xamal ni la. Mm-hmm. rawaan dina jàpp nit ba awra ba nekkoon lu rëy. Mm-hmm. mu ci yëg boppam. muy dem ba bu liir ne ko. booba rawaan ay yàq. rawaan dina yàqal góor ba dootul am doole. sànq am na ko ma woo ma koy seetal gis ni fa la toll. mu ne ma nga baal ma ci kàddu gi li nga wax dama la koy firndeel. su ma yéeg sama kaw soxna rek maa ngay këpp hmm. xam nga yéen nag soxlawu leen loolu xaas mbëpp lay def wala de musiba da ngeen a soxla yàgg ci kaw dana faxa samay nopp sax yàlla dañ teel musal yéen da ngeen a yàgg ah, ci kaw yàgg ci suuf darul xool di yàlla ndax loolu mooy tax ngeen di yegg fa ngeen bëgg a yegg hmm. waaye nag ab jeeg boo ko fanaanoo ba bët set hmm. lam bëgg ci yow amu jeeg ba bu la ko waxee bu la ko waxul am na lu ko naqari kon damaa am impuissance rek ñu yëkkatee jox la garabu ngóoro rek déedéet sëñ buur waaw man de ndax garabu ngóora gi tey bu ma la ko joxee. Hmm. chaque jour dama koy leeral. ki rawaan jàpp dama naan la booleel fajub rawaan ak garabu ngóor gi. Hmm. ki rawaan jàppul moom nga xam ne daa yàgg fo am ndox ndoxama jeex. Hmm. wala kàttan la amatul. kooku mën na maa yëkkati samay biteel jox la. yaa ngi may dégg. ki nga xamante ni tamit la mu yor matul xaas akum mbëllee. xaas ak mbëllee. mën naa yëkkati sama pomaat jox la. am na ñoo xam lañ yor jotul dañ koy jottali pomade yaa koy jotali mhm. loola moom liggéeyal pomade bi la. moo moo koy guddal ba noppi. diggante nga xamante ni itam fu mu toll woqatu day dal góor day daw jigéen. Mhm, infection bërki de moo am na góor gu ne ma sonaar man sama awra wi dama koy xoos rek. ba léegi mhm. léegi sax damay jël lu mel ni eh, peñe di ko ci kii. loolu infection da koy def. ndoxum siti da koy def. ñaare man su ma xoolee ba xam ne infection la tëye mhm. wala ndoxum cité la tëye mhm. bu ci doon sëñ bu dama la koy wax mhm. médecin nag bu mënee tiimu malaat te xamul la ko dal bu nee day faj nee ko da ngay duur ngeen baal ma ci kàddu gi sëñ buur ki la war a faj di xaar nga di ko nettali sa vie privée ngir mu faj la bu nee dina la faj ndax di ko gëm duma ko gëm de heure boo commencé bëgg a noddu li xam man la arrêteel bàyyil ba ma xoolal la ba pare ba wax la li nekk ci sa jëmm ji mhm. te bu ma la xoolalee yow bu ma la xoolalee ba pare kat foo jaar far foos di nga joxe sa ñaari loxo mhm. boole ci sukk jébbalu mhm. ñu wëlbatiku dem ci liggéey bi ñu la war a liggéeyal nit nag mënoo koo ñaanal mënoo koo ñaanal te fekk consulté woo ko dëgg la de waa sañ buur ñaari da nga ciy gis koo xam ne fayum seet da koo të yorul ñaari junni wala ñeenti junni mu bëgg ñaanlu Mhm. waa ki nga xamante ni loo fayee seet amoo ko sëñ buur ñaan yàlla wàcc na la mhm. wala mhm. bu leen topp soxna aada day def te yàlla tax day def te yàlla tax ba ngeen bëgg màbbal këram te yi nga yor it dafa am looy digge ak ñoom ñoo gaa yi ah, gaa yi fan yee nga xamante ne damaa war a dem seeti ji leen seeti leen ñoo am luñ may won lu mettee metti sëñ buur li ma yor du ay caaxaan du lu xale di fooy de dama ni leen woon soxna aada mu njëkk ma ngeen fekk ca kaw mu defar fa ak sangatam bokkul ak soxna aadam mi tàbbi léegi ci bagaasi maamam ñu bootal ko ko loola maamam ako moom la leen neex rek lañ fay doxal dëgg la jamono bu ma noppee doxal lañ bëgg ñoom ñu rëq sama ndigg mm-hmm. te nag sa bopp ma la gënal kat du bañ naa la dëgg la sëñ buur mm-hmm. mën a seet gi ngay wayantoo di ko wax ci man kooku du man yàlla la mm-hmm. don la mu may ma ko mën a ñaan gii ngay xool ci man di ko wax kooku sunu boroom la dëggu gi may laaj ci ñaan yàlla ma saxoo dëggu ci yàlla la mhm. bis bu ma soppee couleur wala ma ne kàkkatal la maye woon mu nangu ko mhm, mhm. yàlla kat mayewut daa am le rek ubbi bëtam xool kon nag ñun ñi ci nekk te fas yéene ni dañuy ñaan te war a jubal kon nañu fu ñu mënti jaar nañ jubal rekk ndax kat ku ne xam na ne ab ñàkk dafa metti nga romb lu bari rombi soxla dikk jox ko sëriñ bi jébbal ko ko am yaakaar ci moom a tax mm. waaye ana yow ana man kat nag ak ragal goo nga xamante ne nii war naa tax loo liggéey versé amul mm. ñun ñii ñaan nañu ragal yàlla mm. ñi ñaanal nañ ragal yàlla ndax léeg-léeg nga ñaanal nit mu gis ba pare ni yow mi ko ñaanal yow lay fen di la nëbbatu naan la bi ma ko sangoog léegi am na lu lu taneeg am na lu suppeeku di wax waxi dof da xam ni kii waxu tappaleeg waxu picc kepp lay wax bëri na ci ñun clients yi lum ñuy dal am na ci ñu gore nag te mm. naan la soxna si nga ne ah ñu ni ñun kat premier jour deuxième jour bañ laa lay nangam macha allah. sant nañu yàlla. garabi soxna Aada moom laal gis la. loolu moom mën naa garab mais su fekkante ni nii nag foo gisee ñu baax am na ñoo nga xam ci suuf ay tappalekat képp la. Mm-hmm, mm-hmm. da ngaa mën ñëpp ni waaw. donte man nit xëyul di ma critiquer mais damay wax ndax léegi léeg nga déggun la soxna Aada de li ma ñamal keroog xaw naa cee gis sama bopp. Mm-hmm. xaw naa cee gis sama bopp dama koy bañ. ku ko ci def damay rëkk sa ndigg gis naa wala gisuma indee dë yaa ngi dégg te dañuy gis sax nag mm-hmm. dañuy bëgg sox ñëwaat kër soxnaa la soxnaa la yëkkati garab mayaat leen pour ñu pour mu neex tamit waaw waaye dama laa xamal ni la képp kuy woote te doo jot soxna aada li tee ñun ñu di la yot moo dañuy rëq sa ndigg dan lay yar mm-hmm. ñi may waxal nag xam nañ seen bopp mm-hmm. jarul forcé jarul mer jarul dara ndax ki ñu taal ba nga xamante ni tàq na ba ni jëppet mhm. bu nee day waaj a tàq te tàqul te man mi nga xamante ni maa tax muy tàq ma xam lépp mhm. kon yow wéroo dëgg la de dëgg la de dëgg la de léegi-léegi nag dangay ngay àll ndax ñoom ñoo lay yéegal waaw ah, soxna la li ma temps yi da ngay sañse rek lu daa wér <laughs> léegi bi wér na ma dof bi daal ay veram lay nas takk daal et noonu nga bëree ay fan Sénégal ci YouTube. inna allaha jamil yuhibbul jamaa. suñu boroom dafa rafet bëgg lu rafet. wallaay ndeysaan ñun bu ñuy wér rek di te kenn dàqu ñoo solo. Mm-hmm. waaye bu fekkee ne suñuy mbir xam nga ñun nag ndeysaan meluñu neen <laughs> ku ñuy àndal yaa am xolum muñ rek te mën ñoo comprendre te yàlla tax. wallaay dëgg la. sëñ Buur émission bi nañ ko gàttal wala ñu jeexal ko. waa kon boog tàggatool ko. pomade yi nag moom mi ngi dëbb dëkk bi. mooy pommade góor ñi wala jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yokk seen awra ci góor ñi. ñoom hmm. ña ngay fecc moom. Hmm. dana dijji dana rëy dana dëgër. ngóora itam. Hmm. ñi ko ci naan ña ngay yëg seen bopp. ñi nekkoon ay tubaab yu dof sax léegi ña ngay wax olof. ndax man kaw kaw laa jaagu may tubaab <laughs> kon baye boo jéem a waxe olof rek kon sëñ buur wa axiru dawaan an alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah